Liquide vite fait, l'encens volcan Johnny Johnny, la bague magique, le t-shirt moulé et Tcherno Moulé Sow, Khalif général des djinns, vous offre votre sketch Ramadan Moulé. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ñu ngi am amati mbégte di leen ziar ci tele bi nga xam ni mooy feeñal lépp lu nëbbu làmboog njëriñ moom ngeen di gis ñu leen koy filmeel di leen ko waneel en direct di vite fait nit ñi ñu ngi ciy gis seen bopp moo xam Sénégal fépp ci àdduna vite fait defe naa ni euh, saa su ne ñu ne leen képp ku am jafe-jafe ci sa wàllum liggéey képp ku am bëgg tukki am jafe ci wàllum visa képp ku nekk Sénégal wala nga nekk foo mën a nekk ci bitim réew nga am jafe-jafe aussi ci sa liggéey mu kale fee bi moo ci man dara te vite fait bi nag amul fenn foo ko mën a amee lu dul kër Alaaji Thierno Moulay Sow keneen ku ñëw ne feneen di leen jéem a woon lu mel ni jàpp leen. ca dëgg-dëgg war naa ñoo gisee am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh Khalif général Thierno Moule Sow Soundiata Keita roi de Djilé aye léegi léegi léegi léegi eh Jokalante dama laa soxla. dama laa soxla. waaw yow sëñ Moustapha ni nga may yee. maa ne dama laa soxla nan laa la yee. waaw boo ma soxlaa ba doo la weesuwul nga fekk nit di nelaw nga di ko yee. maa ngi jégalu jërëjëf maa ngi jégalu. aa waaw yow it ma kenn du def lii. waaw ma ne. waaw xam nga lu ma bëgg. kër gi sama kër baay la. sunu kër baay. d'accord. part bi nga fi am moom laa fi am. waaw ma nag toog fii bu ma tëddee fee di nelaw mënu ma di ma sama jabar bu génnee say jabar wala say rak di ko dóor ba muy daanu ay yéesee ki daanu ay rak ñu naan dafa am ay rak te amul rak mënul continuer kër gi soit dañ koy régler wala ñu dem woote ji ñu miraas kër gi ku ne xam liñ fi moom man bu may jaay ma jaay bu may fanaan ci tabax bu àggul ma fanaan ci waaye dóore beeg saaga yi moom day dakk wala ma jël samay décision bopp yow ndax sa jabar gënu ma sa doom mënu mën naa ko faj waaw foofu nag loolu la waaw yow yow Moustapha yow ñàkkoo fayda te ñàkk kersa ah yow man ba war ngaa toog ak man mi di sa mag nga naan ma ay réew ay sa jabar gënumaa réew mën ba gënumaa sa jabar dafa réew mais yow yaa ko gën a réew yow oh ndeysaan désolé an kay ndax réew a dewe continue wala yërëf wala yërëf vas-y bon hmm? xamal laa bëgg hmm. wut ay coow ay wax. baaxul ci kilifa comprendre nga. billaay billaay yow allah. Mm-hmm. man sa jéeg bu pare bii. Mm-hmm. gërëm naa la sant naa la. aar nga ma. yiir nga ma. lépp lu la war ci man maa yaa ngi koy def nag. te nag kaay ma la benn affaire. Uh-huh. ba ma àndeeg yow ba tey. ndam rek laa ci bi gisuma ci benn yoon gaañ. yow góor day mat. <laughs> góor. yow waaye góor koo xam ne. dóore woo fayu woo. atte woo xeex. dara toog rek ne nongo rek ñu yor la. yor kese kese kese kese joxe ma mooy ma dem jëndi mburu balaa. nee nañ kii bee chaque grand homme y a une grande dame grande dame derrière yow da ngaa mat sëkk li nga doon ci kër waaw. bu ñu wax man booy boo ñu ne yaa ma yëlif booy boo ñu ne dangaa takk buum sama bakken bii di ma diri. waaw ana waaye gis nga jigéen bu baax daa baax ci kër. jërëjëf waaw tey wax dëgg fa yàlla ñëwoo ci kër gi kër gi jaxasoo. te am àdduna. ñëwoo ci kër gi kër gi jaxasoo. gis nañ ki fi ñëw kër gi jaxasoo waaw ba muy metti am na ñoo xam ne gën na woon lekk daw hmm. yaakaar ne nag yàlla du àtte yàlla mën a àtte kër gi bi ma koy bàyyee boobu peinture bi sax new sunu bàyyi génn na ak sunu ndey. li ma la wax ci nekk de nee na yàlla tey jii. Ah. xale bu góor la. sol pantalon ak chemise. wallaahi taxaw ne ca gannaaw. def na ma xale bu góor xam nga dara wax. ndogu ndogu. képp eh, tey risque de ku jaar fi. <laughs> ndogu dong. waaye <laughs> yow. defati nga sama ni nii di nga dëkkee ak man moo jox bu doon heure boo ma joxee ñaari bee yii mm. sama baaraam yi dem mm. heure bi kuuñ naa mm. doo kuuñ na pour day am jom chaque jour ma jox la ko ay waaye dëkkee rek ñu yor la yaag sa doom sa jabar yow ku ama gudd doo la cim la ilaha illallah waaw amatuma lu ma ciy teg man man amatuma lu ma ciy teg waxal nga ba nga baal ma ne ma ne nga baal ma est-ce que sérieusement parler góor nga ba léegi yow yaa sa géwélu jabar yow hmm? yow des yow nga sama baay yow Euh, yow sama papa bu dekki woon ñu gis la ngay tarbi sa jabar mi billaahi dalay ray suul la. yaa ñàkk jom. yow est-ce que ni sa àqu baay la topp yow. yow mi la sa àqu baay topp yow. yow Moustapha xam nga sunu àqu yow mi tarbi sa jabar ji nga xamante ne ah xam naa kii nu xam ko takke de. ah xam naa kii na nga ko ma ko takk de. quarantaine jours nga ko takk. Moustapha suulil ma ko takk man wax dëgg yow Moustapha lan moo tax yow li nga amoon lépp ne fourage de. waaw waaw lan moo tax quarantaine jours ko takk lan moo da ngaa dëkk ci mooy yàgg sa jabar ñaata yoon ngeen nga. Ah, waaw baax na ah? yàlla gis am naa suñu kanam. Ah, nan waxante kii nag bu ma moytuwulee dinaa ko waxal moom démbam ak képp ndeyam. yaayam ci biseron yi fii la nekkoon di naan xam nañ ko. baayam ne fii yaayam waaw baayam deewul kafe deewul kafe waaw waaw mu sëñ baayam ko deewul kafe sëñ da ngay déliré waay baayam ko da ngay déliré xam nga ni sama jabar <laughs> xam nga ni sama jabar bokk ak sa jabar waay aduna ngi si kanam aduna mi ngi sa kanam ma ni la ku bon ak ku baax yàlla mooy atte te yàllaa ngi at ñëpp di teg seeni bët. ah lii la yàlla atte sa jabar yëf la rek ah, baax rek jigéen bu la respecté da nga koy respecté. da nga naan koo jigéen boo ko da naan jigéen boo ko ragalee da nga koy respecté. yaa moo yow yaa ñàkk jom. billaahi oh sa regret. yow regretté ko regret moo tax nga jóge sa kër ñëw fii da ngaa regretté ba jóge sa kër ñëw fii ah da ngay dem neexoon na waaye ba mu naqaree da ngaa regretté ñëw da mën a yam ma yor la mënoo ko yàgg sa jabar ak sa doom timit un point c'est tout la guerre est terminée ay terminé wut la guerre est commencée waaw yow di nga xam ni Moustapha nag man maay sa mag yow di nga xam ni guerre man nga ko sekk te boo ma ñemee génnal fii Moustapha génnal fii yow xam nga ni mën naa laa wal ba toog sa kaw nga nen kenn la ci nga ma doogoo ko barke lay ah ay dëgg dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee te dëgg dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee doomu ndey am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh Khalif général Thierno Moule Sow Soundiata Keita le roi des cher Moulay Sow, voici une très bonne nouvelle. De quoi s'agit-il? s'agit d'une bague magique, une bague magique qui est amenée par le khalife général des djinns, Thierno Sow, qui ne cesse d'impressionner les Sénégalais. Donc une bague magique qui vous permettra d'avoir de l'argent. Dès que vous avez des problèmes d'argent, vous avez des problèmes de boulot, si vous avez euh, cette bague magique, vous serez tiré d'affaire. Si vous voulez l'avoir, vous pouvez le 78 580 46 46 78 580 46 46 venez vite le est limité